Baye Kane. mais maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. Balla naka mu. sant yàlla. Balla tey teew nañ euh, kontaan nañ tey ci sa teewaay fii ci biir arène nationale ndax arène nationale day soxla champion yu mel ni yow tey sa teewaay ci biir stade bi ku ne xam na ni Youssou Ndour sa rakk mooy bëri tey bi nga ñëwee lan nga ko wax lan nga ko digal. waa sant yàlla alhamdulilah man ñooy fekk stade bi taaru man di sama plein. ko ñaanal yàlla yàlla may ko ndam incha allah di kontaan ci lii lii moo lay wan ne làmba ngi dund làmba ñu neex kon nag lii mooy suñu devoir ñu war ko def def ko ñaan yàlla yàlla may ñu ndam. tey lan ngay wax tey jeexitalu saison bi la ñu ne tey mooy dernier jour ci saison bi ku ne xam ne ni am na xale yoo xamante ni Balla Gaye numéro 2 wala Modou Lo wala yeneen champion yi fi nekk ñoo tax ñooy seen i idole bëgg ñu doon ay champion xale yooyu lan nga leen di digal. loolu làmb moom wala àdduna sax ah liñ fiy diggalee te du bëri boo gisee ay nit débuté ci zéro dem ba réussir war nga topp tànk liggéey gérer ñi nga war a gérer ànd ak war a àndal bu ko defee yàlla dina defal loo

bu ñu amaatoon leneen nu wara a ci lamb wala leneen nu defaraton ci lamb tay Balla ban gis-gis la ci am. ñu ñu ñu gis-gis yi que ñu ko ñëpp di gisee rek lu bon ñu dund ko lu bax ñu saxal ko. ngi lay jaajëf mais taxal Balla dem Balla rek ku la tette def la champion def la roi def la lépp ci làmb ba moom du bëre tey nga ànd ak moom gunge ko sa dina dem fa sori te Youssou sax yaakaar naa bu ma juumul c'est la première fois ma fekkee combat am moo tax loolu day di si man mais moo taxit daal lépp lu ci war ah ñu ngi ñaan yàlla yàlla moo tëddee am nañ ci yaakaar baax baax jërëjëf Fara.